jërë ngeen jëf merci beaucoup de votre fidélité renouvelée à votre chaîne préférée la M4 TV ni ki tey yemook euh, talaata fukki fan ak benn ci weer juin ci atum ñaari ju nekk euh, ñaar fukk ak ñeent comme ni ñu ko baaxoo di defee bés bu jot ñu waxtaanee actualité maanaam waayu réew mi euh, ni ki tey nag ñuy dalal benn consultant di wuyoo ci tuuru Abdou Nguer ñu fas yéene décrypter li nga xamante ni moom mooy actualité li fi jot a xew Abdou ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki internet M4 TV. waaw maa ngi nuyu ñi faral di seetaan MK TV yëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ñaanal ñu di wax ni lépp lu fi waxtaanee rek nay fekk mu lu jariñ askan bi yal nañu yàlla defal jàmm. jërëjëf amin alors mi ngi noonu Abdou euh, wax naa ko ci njëlbeen li ñu nar a waxtaanee moo mooy actualité euh, ponk yi ci gën a fës nag bokk na ci discours bi nga xamante ni le premier ministre Ousmane Sonko euh, def na ko ki démb. Euh, nga yaakaar naa ni seetaan nga ko déglu nga itam discours bi naka nga jàngatee euh, forme bi laa laataa ñu ñëw ci fond bi. waaw discours bi moom de dafa woowoon jeunesse partem ne day waxtaan ak ñoom d'après jeunesse partem nag wisi nañ ko mais nag biñ gisee discours yi mu fa tenir ba vraiment amul njariñ ci réew mi daal xëy na amal na njariñ ay ñoo ñu mu woowoon mais réew mi moom gisaguñ ci njariñ ndax. doo dajeeg benn sénégalais mun la Ousmane Sonko kat lii mu wax njariñ bi laa ci kii wala urgence yi ñu doon xaar ci moom lii la ci wax wala lii wala laa Ousmane daal ñëw na layal boppam. réew mi wala yow gisoo ci njariñ. non dem d'après réew mi boo laajee ñi ci gën a bari ku naa fekkul xam ne réew mi Ousmane li mu wax démb amul benn njariñ parce que dañ la jox réew nga ne naa ko d'ici deux mois dinaa dina am lu ma soppi ci réew mi. ñu gis deux mois jot na soppi woo dara nga wut lay loolu kese la. Mhm. mais wax nga ko ci njëlbeen euh, Ousmane Sonko a appelé les jeunes de son parti. Mhm. donc est-ce que du les jeunes de son parti la doon waxtaanal waxul ak euh, yow mi nga xamante ne ko ci biir parti bi. waaw mais après wax ji dañ cee gis muy adressé chaque fois di wax sénégalais yi di wax population bi. Mhm. bu doon dafa wax ci parti bi ni ñuy doxee ni ñuy déparé seeni i loi seen i règlement parti seen i affaire kenn kenn du ko tontu mais dafa dem biir dugal ci. solaat mbubu premier ministre xam Ousmane Sonko chaque fois danaan chef de parti bi mooy woote mais bu wootee en tant que chef de parti pare biir woote ji da ci dugalaale mbiru réew mi bu ko defee nag nit ñi nit ñi buñ ko tontoo mu ne ñu ne président kii euh, euh, ñu ne premier ministre nga avancé jàpp dugale ci kaso bi loolu mënut a de. mais mais boobaak léegi ñi ko fi tontu bari na kenn jàpp leen dugal ci kaso bi. am na kuñ ci convoqué tey rek section d recherche. waaw lan la wax lu mu wax ba ñu convoqué ko. ah en tout cas critiqué na Ousmane Sonko remettre ko dans l'ordre mooy Ousmane Sonko utilisé contre ñeneen ñi moom la utiliser contre moom. muy yan mooy lim ne juge yi dañuy fen mhm. ak dañ leen a corrompre. Ousmane Sonko kañ la wax ni euh, juge yi dañ leen nee na procès bu ñu koy àtte cour d'appel ba cour suprême ñëpp dañ leen a corrompre ñu koy fenal. loolu la wax ñëpp a koy dégg. kañ la loolu. keroog ci discours xanaa déggoo ko kon. waaw ko mais dégguma mu ne dañuy. fenn munoo koo dégg ko dégg. ñëpp ko dégg non dégg dégg man personnellement. waaw j'ai wax technicien mu daggal la extrait boobu. fi ñuy waxee ah, ci juge yi xaaral xaaral hmm. euh, Abdou. man j'ai suivi l'intégralité du discours. waaw mais aussi benn yoon Ousmane Sonko ni juge yi ak magistrat yi dañuy fen dégguma ko benn yoon. ma ne Ousmane Sonko xam nga lan la wax dane bi ñu koy àtteeg Mame Mbaye Niang cour cour d'appel la ko commencé ba cour suprême dañ leen a corrompre mu teg ci ne ñuy fen loolu la ci teg parce que li Ousmane Sonko ñaawteef yi mu wax ci discours bi doo ko bëgg a dégg kon mais ay ñaawteef rek la fa wax wax yu bon rek la fa wax wax yu wax yu wax yoo xam ne maanaam wax waxu waxu bàll fuy rek la fa wax mais Abdou est-ce que du yow aussi yaa bëggul comprendre le discours bi euh, premier ministre euh, def premier ministre da doon premier ministre da doon xaste ak a dàgg sante non xam nga yow mën nga ko jàppee xaste mais y a beaucoup de sénégalais yi nga xamante ni quand même comprendre nañu le sens du discours. parce que bu fekkee euh, jàpp nga ne discours bi amul lu am solo euh, am na keneen koo xamante ni jàpp nañ ci biir discours bi on a parlé de la reddition des comptes on a parlé aussi beaucoup de yi nga xamante ni mën na jëmale réew mi kanam. man xam nga am na ñaar ñaari ñoo xam ne du ma wax ak ñoom ci waxi Ousmane Sonko. Mhm. mooy taalibeem ak militant du ma ci wax ak ci ñoom. Mhm. ndax ñoom seen. Sénégal man da nga ma considéré taalibe waxuma la yow de waxuma la yow mhm. yi ngay wax dama ne la. am na ci ñoo xam ne duma ma wax ak ñoom ci wax Ousmane Sonko du ma leen ci laaj duma ma wax ak ñoom xam nga lu tax ñoom ay taalibeem lañ li Ousmane Sonko wax loolu lañ wax lu mu waxul seen yoon newu ci Ousmane Sonko bu leen dajale woon fii sax di lépp doy na leen ñooñu waxuma ak ñoom sénégalais bi nga xam ne moom programme lay xaar dund bu ñoŋ dund bu baax liñ ko digoon moom lay xaar kooku laay waxal ne ko Ousmane Sonko mi dafa ñëw pour nax la parce que lim la waxoon mënu ko mais militant ba may waxal mais mais mais euh, ab xam nga yow tey boo dajale woon sa gétt xar fii di waxtaan ak yoon man sama yoon newu ci. d'accord mais Abdou yow euh, ci deux ou trois mois naka nga mën a xamee ku mën ak ku mënul. waaw kooku moo waxoon ne deux mois bu ñu ma joxee ma def bu deux mois jotee ma sa ñaane ko mënoo euh, aussi il faut que aussi ñu rationnel un peu euh, ñu objectif un tey bu fekkoon réew mën na ko defar ci deux mois du ñu def mandat wu cinq ans Abdou donc mandat wu moo mooy dañu bëgg a defar réew mi ci biir cinq ans yi. li nga may wax ni Ousmane ko koy reproché man maa ko wax de. moom moo ne mën nañ wala mënuñ jox leen ñu bu ngeen joxee deux mois ndox courant électricité ak dund bi dañ ko wàññi ba nga koy wax kenn seexalu ko lem. mais réew mi bari na problème. li ngay wax waxuma ko de loolu dama bëgg ñu d'accord ci point boobu bala ñoo départ. non xam nga wax wala waxu ko. fa nga loolu am loolu de xam nga. Ousmane Sonko ma dama ni nit la. ko ragal. non rag man ko wax. ragalu ma dama ni. gis yow da nga fi nekk dama jàpp ni nit la da a ma war leen leeral nit comme nit ñëpp. waaw bu waxee binduñu ko ci constitution bi. Hmm. nekkul un impératif boo xamante ne waxam dañ ko war a topp. kon warut a sàmm kàddoom non la mu wax moom la engagé. waaye warut a sàmm kàddoom daal. Eh, dafa wax loo xamante ne dafa waroo ak li mu def. actuellement li mu wax kay du dëgg ndax ñaari weer yi moom romb na te dund bi daa yokk. lan la fi Ousmane wax Ousmane Sonko wax lu dul dëgg. mooy ñaari weer dañu wàññi dund bi ñaari weer dund bi daa gën a yokk mbir mbiru Ousmane Sonko mbiru Ousmane Sonko dañoo sénégalais ñoo tooñ bopp ñoo fal ñoo xam ne mënuñu di jëf wax rek lañ mën ay waxkat lañ man li ma mënul comprendre lan moo tax euh, nga bëgg inscrire ci siège boobu mu ni mënuñu mënuñu te yow trois mois lañ defagum 3 mois xaw ma 2 mois et quelque. waaw léegi moom moo ne woon defagum. léegi xam nga Ousmane Sonko lan la war a def jéggalu Sénégalais yi ci 2 mois yooyu mu leen naxe ndax da leen bu ngeen ma falee 2 mois ma régler problème yu yu daar daar yi dafa am yoo xam ne mënutoon a xaar mooy dund bi problème la bu mënutoon a xaar. Ousmane Sonko. mais mais xaaral xaaral Abdou aussi tu es Sonko bi muy ñëw fan la fekk waa léegi sax daam daa yaa ngi biir Sénégal. waaye daam xam nga situation économique mondial ni mu ni mu tëree. ah tey lañ ko xam. non euh, Ousmane Sonko ma ignoré wul loolu. mais yow da koo yàgg ignoré ñun yàgg nañ xam ne lii muy def mënu ko mais nag ñi mu doon nax jàppewu leen ay nit moo tax mu doon wax ak ñoom noonu mais ñun ñi nga xam ne xam ne ñun ay nit lañ ñoo nax mais ñi nga xam ne dafa jàpp na ñi ay objet yu teg laa teg nii rek di leen draguer di jouer ci seen xel lu ma neex wax leen da jàpp ni ñu topp Ousmane Sonko ñoom ay objet non duñ xalaat buñ doon xalaat duñ àgg duñ egg si Ousmane Sonko fii Abdou aussi il faut il faut kan yow yow waale d'accord mën naa ñëw y a pontes yi nga xamante ni mën naa ñëw bokk ci biir parti Pastef mën naa ñëw ay boroomi boroomi boroomi bopp bokk ci biir parti Pastef seen bopp yooyu adhéré ci projet bi euh, projet parti Pastef bi nga bëgg a taxaw ni amuñu amuñu amuñu amuñu xam-xam projet Pastef c'est di escroquerie politique yow mii nee nga réew mënuñu ko defar ci ñaari weer léegi ña toogoon di ko dëgg gëm muy wax loolu bañ ko ba ñuy dëggal ay waxam ñooñu ay nit lañ duñu ay nit parce que yow mënu la ko mënu laa nax ci loolu parce que xam nga ne réew kenn mënu ko defar ci bi ñaari weer mais moom mi ko doon wax ci gémmiñam di wax li muy wax xam ne man mii li may wax du dëgg ñi mu jàkkaar loolu la respecté wut parce que jàppewu leen ay nit ñoom tamit ñu nangu ko di cons li muy wax moo tax ma jàpp na ñi ay objet yu mu tegoon la di joué mais man mënu ma jàpp ne nit yuy xalaat la doon waxal man bépp politicien bu jàkkaarloog man ne ma réew mi naa ko régler ci ñaari weer ma ne waxoo dëgg président Macky Sall li mu def ci réew li mu def bi mu ñëwee première maanaam exception la mooy 18 jours nga wàññi nga wàññi dund bi fu mu mujjee waa xaar fu mu mujjee Covid 19 moo ñëw. non mais xam nga. dund bi doo ko yokk dund bi 2019 la yokk. am na yenn mesures yoo xam ne boo koy jël il faut faire l' état des lieux réew mi dafa am ci nuñ ko fekkee 2019 la woon ba léegi wënniwul. ba léegi mi ngi continuer waaw donc en ce moment ak arrivé wu nouveau euh, nouveau régime bi. waaw c' est normal man dama jàpp ni normal na ñu saytu saytuwaat soog a indi changement. xam nga man lan laa mënta muñal. Mhm. nit kuy wax lu dul dëgg. maanaam ñu baal ma ci kàddu yi ñu koy wax fenkat laa munta muñal kan mooy fenkat waxuma kenn nit laa wax généraliser kuy wax lu dul dëgg dama ko munta muñal boo nee mën naa jox leen ma bu ñu la joxee def nga war a def waaye nag daa lu doy waar xam nga lu doy waar saakub ceeb ma Macky Sall di dix-sept mille la ko bàyyi woon loolu sénégalais yépp a ko xam Sonko ba mu demee ba mënu koo wàññi mënoon na fexe bësante ak ak ak ak commerçant yi bësante ba mu yam dix-sept mille mais léegi mu ngi dix neuf mille courant woyofal bi mu ngi fekkoon cinquante trois kilowatts. courant woyofal bi yoonu yoonu Sonko nekk ci aussi man xam nga lu ma bëgg xam. xam nga am na sax xam nga na lu ma la bëgg genre discours bi boo koy tenir. non faaw moom lu ma la laaj. non allez-y mais genre discours boo dégg. Ah, faaw moom mooy yokk. ma la laaj. allez-y ndax da ngay jàppale Sonko wala da ngay def journalisme. non xam nga boo fi toogoon euh, Abdou. Euh. boo fi toogoon. Euh. di analyser de manière objective. waaw. li ngay wax nga teg ko ci raay bi. Hmm. man du ma du ma la contredire du ma la wax dara. mais dama xam ne li ngay wax nii. xam nga xam nga li may wax kan moo teguwul aussi. lan moo wax kan moo koy àtte. téléspectateurs yi ñuy seetaan ak auditeurs yi ñooñu ñoo ñuy àtte mais man ak yow kenn mënu cee àtte moroomam li ma lay wax ni Sonko ko wax li may wax ni Sonko jëfi Sonko la amoon lenn lu ma ci inventé. maanaam Sonko moom moo yokk woyofal bi. dama waaw ci rési. ci maanaam ci régime. Sonko la yokkee li yokk ba pare. doog la wax lu ko indi wax la lu ko indi dañoo dëkk da ngeen a dëng nekk nguur gu dëng li ñuy def duñ ko wax. man nguur. nguur jomaay fay gii li ñuy def duñ ko wax parce que yokkute gii dem ci courant bi ñëpp ngi koy jooy de mais doo gisoo communiqué gisoo ñu wax ci ne pat di di encaissé ci suuf noppi. encaissé lan. loolu ñuy yokk maanaam 53 kilowatts yooyu nga doon jënd 5000 te ñu la koy jaay léegi 38 kilowatts 10 000 yi ñu la doon jaay 106 kilowatts te léegi ñu lay jaay 10 000 francs ñu lay jaay 63 kilowatts. Euh, léegi. nag xaaral. léegi sa 40 kilowatts yooyu xaalis la fu muy dugg ñi ngi koy roppat te yëgoo ko. ñan ñan ñooy roppat loolu. état du Sénégal moo koy roppat ku koy roppat du yow du man. mais mais Abdou. waa xaaral ma ñëwaat li nga wax man dama bëgg a eh, eh. xam ba xam da nga ci am ay preuve wala da nga ci am lu la leer wala. parce que li nga wax c'est très grave. man kay li ma lay wax je suis en train d'accuser l'état du Sénégal aussi. waa léegi comme yow yaa leen fi nekkal kay man. non man je suis en train de poser des questions. parce que télé auditeurs ak inter internautes yi ñuy seetaan bëgg nañ mu leer. man bëgguma koy lay. allez-y yàlla xam na ni. Mhm. dafa mel ni damaa xamoon ne sax dinañ wax ci woyofal ba ma gàddu ko indaale. boo ma ko boo ma ko boo ma ko boo ma ko ma ko mënee transféré euh, nga xamante ni ma envoyé ko Lamine. waaw mu daal di mu daal ñu koy afficher fii mbokki internautes yi itam ñu gis li ngay wax. parce que man bañu ma nga indil ma preuve mais na nekk preuve bu aussi. loolu rechargement la. waa léegi rechargement bi loo ci wax. woyofal. waa li 63 kilowatts waxal rek. 63. kilowatts waaw. dix mille xam nga ñaata la doon doon. Mhm. cent six kilowatt ci ñu yàgg wooyoo yéen it wooyafal. mais mais man personnellement. damaa bokk ci njëkk am fal mais mais tey dinaa la wax beneen affaire sànq laa mujjee tourné émission. en mhm. direct maa ngi nuyu waa euh, Net bi TV. allez-y euh, dama juum ci site bi sax situ Njaw Faal bi. Mhm. bi ma fay dugg ñoom lañ jënd courant cinq dix mille cinquante et un lañ leen jaay kii sax moo leen ëppale. muy ay catastrophe yu doy waar ci Sénégal. mais ci deux mois aussi naka nga mën a. li na nit ñi da ngeen ko war di pës ko sës ba ci miir bi ko di ko di ko defee ci di ko vaar ba ba mu koy sentir noonu la ngeen ko war di def dina leen nawloo mais gis nga seen seen genre discours yi boo tax Sonko mënul na lu ma def dinañ ma layal mais lii kenn waru ko layal mais li ma loolu sax sori na. Mhm. allez muy diwlin ceeb ba ci facture ndox yi dafa yokk léegi nag man xam nga lu ma ci naqari fi ñu ko fekkoon mënoon nañ ko fa bàyyi mais nag comme ci deux mois lañ ñëw ñoom au lieu que fañ ko fekkoon ñu wàññee ko sax dañ ko far yokk ma tax ñu war a jéggulu Sénégalais yi te te su suffisé loolu nag lan moo ko waral. allez te man xaw ma lu ko waral ñoom ñoo war a génn daan ne ah yokkute bi nanga ma ko waral mais ne patt rek di roñ milliards yi jàmbur yi port bi boo fa demee. laaj transitaires yi c'est que roñ milliard te actuellement ñu on est en train de faire l'état des lieux passation yi passation de service yi am na yoo xamante ni euh, démb sax la am te yow yaa ngi wax ni ñoom ñu ngi commencé roñ ay milliards milliards yi nee naa la milliards yi milliards yi sénégalais yi ñu ngi koy roñ ci suuf te yëgoo lii ma la wax man dama la jox ay preuve dama la jox ay éléments yu concret jox la lu factuel sosuma indi inventé wu bu la neexee yow nag nga dégg ko leneen. mais Abdou Abdou dafa xaw am benn euh, jàngat boo xamante ni peut-être mën naa la ko laaj mais euh, j'ai vu que euh, tu es en train de dénoncer et je vois que y a des points positifs yoo xamante ni c'est très normal pour un consultant parce que boo defee analyse bi war nga mën a gis ni la baax ak libon bon tu libre de dénoncer. mais régime bi passé gisuma woon nga amoon taxawaay bi parce que lii amu ci woon. non si y' a des rapports. courant bi waxuma rab bu ñëwee ci rapport yi bu ñëwee ci rapport yi dañ jox mais instant xam ci lañ lañ toll. yokk ak wàññi. ma lay wax ne. wàññi lance lancer régime Abdou. waaw li nga dinañ ci wax lancer régime. wala bokk na si si bokk na ci li nga xam ma yem ni ma leeral ko ñu ñu xaar xaar ma ma ma euh, lancer les questions bi dama ni lancer régime hmm. bokk na ci li tax ñu wàcce leen fal Bassirou Diomaye Faye mooy dund gu cher. merci d'accord naa léegi dund bu seer boobu ñoom fañ ko fekkoon dañ ko gën a seeral. kon ñii dañ leen war a wàcce daar daar. non déedéet xam nga deux mois aussi. léegi dañ leen a la nga fekkoon Abdou aussi ca la nga fekkoon prix ba nga fa fekkoon da ngay suivre football. maa ngi suivre football waaw. yow boo jëndee benn cote fekk équipe bi nekk dix-septième mu leer na ne dix-neuvième ak vingtième bi dañuy wàcc te moom dix-septième mën na ko maintenir ah ba ba ba dix-huitième bi sax moom du dem barrage nga équipe bi nekk di daanu nga changé coach coach bi ñëw yokku équipe bi dix-neuvième yow loo war a def te dese nga ay match da ngay changé coach bi. pour mën a yéegal équipe bi dama lay wax rek. exemple yi du benn waa léegi xaaral wax la Bassirou Diomaye Faye dama fekk prix bi laa la wax ci dix-sept mille xanaa nag lu lu Bassirou Diomaye Faye cuune cuune cuune cuune cuune war na maintenir dix-sept mille yooyu parce que dix-sept mille yi lañ bëggoon mu wàññeeku looloo fi jëlee Macky Sall dix nit ñi bañ na Macky Sall na fi jug. courant bi cinquante cinquante trois kilowatts yooyu dafa seeroon bañ na dañ ko wàññi nañ ko wàññi Basiru nag ñëw far lañ doon am akus néew ñu far ko perte nag mooy ceeb ba gën a yokk courant ba gën a yokk ndox ma gën a yokk loolu moo naan saafara bu jur jàngoro ñun dañ doon wut fu ñu làqatoo léegi nag Basiru bañ dal ndekete boobu foofu foofaa gën a catastrophe li ma la wax yaa gën a comprendre li ma la wax courant bu seer lañ doon jooy ak ak dund léegi daa gën a seer léegi loolu nag ñoom dañoo war a am ay explication yu ñu jox sénégalais yi bu dee crise mondiale bi nangu nañ ko tey parce que Ousmane Sonko nangu ko woon daaw crise mondiale bi ko Macky Sall di wax nee na moom loolu ay tappale la yooyu ju am nangu ay incompétent lañ wax na lu ko neex léegi crise mondiale bi dab na ko sénégalais nag bu la bëggee mën na la baal lu ne te sénégalais yi bëgg nañ leen nañ génn wax leen dëgg parce que sinon ñun yi ñuy denoo seen yi kenn mënu kenn mënu ko teggi yu fi am la lu factuel nga koy gis bu dee yaa ngi utiliser woyofal xam nga li may wax bu dee yaa ngi fay courant xam nga bu dee yaa ngi dund xam nga li may wax bu la neexee nag nga analyser ko ni nga ko bëggee. man man d'accord naa man ñàkkuma ànd ak yow ci li ngay wax. Ah. mais aussi dafa am yenn point yoo xamante ni boo koy.